mais mais li li li wax dafa am solo foofu laay teg teg sama tànk parce que euh, c'est vrai que piège la mooy boo indiwul rapport ñu condamné la boo indee rapport ñu ne da ngaa recel de dossier de document administratif. dans les deux cas tu perds voilà <laughs> xam nga c'est c'est une stratégie. mais mais damay naan ñi xamuñu Sénégal kon. gis nga Sénégal dafa toll foo xamante ni li bu ba wax ku sentir ku xam réew mi nu mu nu mu fi fi yëf yi toll. Mm-hmm. non doo fi nekk di indiwaat beneen problème. Mm-hmm. et puis c'est trop cousu de fil blanc. Mm-hmm. mënoo topp nit ci benn dossier pendant deux ans bëgg ko bàyyi topp ci beneen dossier man justice bi laay wax parce que pouvoir la te dañ naan bon man li ma jàng première année ci droit. parfois sax politicien dañ naan le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques mën nañoo topp benn homme politique pendant trois ans opposition bi du wax justice jël temps te suñu prof ñu année droit dañ daan jàngal naan la la justice a besoin de deux choses la confiance et la sérénité. Mm-hmm. parce que comme elle est rendue au nom du peuple Mhm. dañ ko rendre avec beaucoup de sérénité. Mhm. gis nga justice moom moo moo ñu mën a génn ci situation bi ñu nekk les hommes politiques ils vont se battre pour quel ku ci nekk say intérêt particulier et personnel da lay jaral xeex mais justice bu ko neexee mu renvoyer dossier euh, Sonko yëpp ba juin 2024. Mhm. am na ci droit ne leen di da ngeen politique dama leen xeexi politique mais du ma leen bàyyi ngeen ñëw ci justice di fa xeexi politiquement. parce que li gën a dangereux mu ci réew mooy euh, ñu bu ñu commencé fooye institution yi. dem ba ku ci nekk jàpp ni boo nekkee pouvoir mën nga sa parce que dossier Mame Mbaye Niang bi mais Mame Mbaye accepté nañ ni rapport am na mais le problème mooy bu Ousmane Sonko génne rapport ñu ne ko recette de document administratif ça c'est mm. clair. Mm. Ah mais Mame Mbaye taxaw na jiñ na ko amadu Ba ne jiñ ne Amadou Ba moo bon il a il a a vraiment Mame Mbaye moom amul amul amul amul dara luy wax ci loolu et ki boo lire livre bi rek amul dara lu muy wax ci loolu maintenant le problème mooy porte wul Birahim bu doon seetal dërëm rek mais même demoon na moom sax ba démissionné ñi naan euh, <laughs> premier ministre moo dem fekkaat ko fa ainsi de suite c'est-à-dire que le fait que euh, Cheikh Yérim Seck wax a gën a ñaw ci mambay ci ci kii bi euh, kay dafa Birahim Seck dafa bind livre mais lu tax mm-hmm. ñu topp nit benn dossier parce que en réalité xam nga gis nga dossier boo tegatee ci Sonko mm-hmm. Sénégalais yi mënatuñ cee perte temps parce que on a perdu trop d'énergie comme de l'acharnement mais c'est de parce que dëkk dañoo toll foo xamante ni ñun mm. dañoo bëgg am choix tànn kan mooy suñu président en 2024 mënoo mm. ñëw 2019 nga ne euh, Karim du nekk candidat euh, l'autre Khalifa du nekk candidat te lépp justice lañ koy jaare à un moment donné sénégalais yi mer nañ fi génn fii te génn bi ñu génnoon 2021 niveau de violence bi ñu wane wala ne ni ñu ne peuple yëpp a autant dañoo jàpp ne ñun ñun Sénégal dëkku jàmm la mag ñi ñaan nañ fi mais mars 2021 on a montré au monde que ñun ak ñëpp a yem dëkk bu eggee foofu kenn dootu ko fooyee fooyee ko mooy lan mais parti au pouvoir na dem defi xeex yi wuti ay nit mais munoo jël benn nit topp ko mais pendant mais c'est fatigant man dama naan est-ce que nit ñi xam nañu Sonko dafa am njaboot am doom ay juy jàng yi tout cela mais munoo topp nit mais non saa yi bu campagne sax coow li commencé mais nañ doon politique yi. parce que année bi li boobu wax onze mois yi xam nga lan la waroon doon mooy li Charles wax léegi c'est-à-dire que on pose les vrais débats <coughs> dans ce pays là. déglu day mel ni course ñu war a njaabal balaa fa balaa balaa ñuy daw course bi ñu xool les les candidats xool seen programme Boubacar Camara a écrit un excellent livre on n'en parle pas. mais Sonko Adji Sarr après Sonko mais arrêtons. c'est-à-dire que lii yëpp dossiers yi yëpp mën nañ koo dàq justice du perdre la face parce que Sonko nekkul ci prison Mame Mbaye nekkul ci prison Adji Sarr nekkul ci prison ñoom ñëpp ñëpp a ngi seen liberté mais comme ñu ngi seen liberté te dossier bi ñoom lépp dëgg rek a leen tax a jóg mais nañ bàyyi ba ñu génn ci climat bi ni parce que mun nañ ko mun nañoo pousse yëpp ba ba ba ba ba mars parce que bu ñu ko yóbboon mars 2024 rek laa la wax kenn dootul sonn ci benn dossier mais mënuñoo jël chaque fois parce que pour la première fois au Sénégal tey kenn xamul kan mooy doon candidat te lépp c'est le bon vouloir du prince quoi qu'on puisse dire mm-hmm. bu président Macky bëggoon li lépp jeex li lépp jeex mais Sénégal avec sa démocratie boo demee ba tey assemblée nationale française ñu ci ñuy wax ci Sénégal di ko di ko di ko tuutal dafa yoo xamante ni ñun tamit ay nawle Macky Sall la ñu quoi donc y a des choses yoo xamante ni Sénégal war na dépasser lii ah ñu war a fi ñu ne nii homme politique dañoo waroon commencer di wax waxi wax waxi nga bëgg a yoree Sénégal que instant yi nii ñu ngi war a exploiter suñuy ressources pétrolières xaalis bi fan lañ koy dugal fan mais on parle de rien du tout ñu ngi ci zone boo xamante ni mi ngi tàkk fu nekk kenn xamul fan lañ jëm yow yaa ngi ne Mali fi ñu nekk nii jihadistes yi fi ñu ci taxaw Guinée Burkina yow Sénégal nga nekk benn îlot de tranquillité yor sa almet mel ni kuy foo moi je me dis a une seule chose qui peut rester euh, qui peut régler tout mooy la justice naw ne politique dem na ngeen xeexi politiquement mais du ma du bàyyi ngeen may utiliser pour les combats parce que c' trop facile aussi waaye ah ñu attelé nañ ba ñu accélérer dossier yi avec une célérité boo xamante te boo mosaan wax justice ñun la non le temps de la justice n' pas le temps des hommes politiques mm-hmm. c' aujourd'hui lañ bëgg a wan justice wan nañu son temps n'a rien à avec le temps des hommes politiques mais bu dee à chaque fois un adversaire a aw buuru këram ba mu amee benn euh, ndaw si di def satala gi ndox mu tàng di dàq jabar gis nga troisième femme ba mu ñëw <laughs> ba mu <laughs> ñëwee non daka ne jeex na xarit il faut que waa APR taxaw xeex nag ak candidat boo xamante ni sénégalais yi jàpp nañ ni pare pour nekk président mais naa bëree nit mais dañu may takkal si loxoom takkal takkal ma tànkam ma xeex ak moom ça n'a pas de sens mm. sénégalais am nañu droit choisir 2019 on a euh, génne nañu waa PDS li ñu waroon tànn génne nañu xalifa Sall mais bii nag yaa xayti mu laa ne nañ ñu bàyyi ñu tànn suñu président comme des personne responsables mais bu dee justice moom moo ngi moo ngi fi oui oui nañ dem justice nañ dem justice non loolu président bu ne mën na ko def adversaire président bu ne mën na ko def adversaire mais ba ñu changé loi yi en 2021 pour yombal ko léegi bu ñu la tëjee sax 6 mois sursis dootoo mën a bokk imposé mais xam nga yooyu yëpp nga def ko changé ko mais yooyu c'est trop c'est trop de fil blanc gis nga mën nañoo def lépp ci wàllu Euh, loi ak règlement mais un peuple da nga koy déglu un peuple da nga koy déglu te xaw ma ku dégluwul ah xaw ma lu ñu def mais sénégal yi fii ñu toll sa situation yii sénégal yi toll fii Sénégalais yi nekk je pense pas que ni waratuñu waratu nañoo jouer ci affaire loi règlement pour man nañu may politiciens yi ñu def seen politique fii ak 2024 politique politicien la la loi Ousmane Sonko rëccul tëjuñu ko Adji Sarr rëccul tëjuñu ko Mame Mbaye rëccul tëjuñu ko quel est le problème ñu xaar leen ba 2024 après les élections ñu attelé boobaa nga gis kenn dootul sonal ci atay donc si si ce dossier là est aussi politique parce que moi moi je me dis que Mame Mbaye bu doon bu doon bu doon attaqué na euh, Birahim mi nga xam ne dafa bind livre parce que livre ça reste xam nga wax sax day wax dem mais bind dafa day des mais mais mais le problème mooy euh, mënoo topp benn homme politique singali ko mais pendant quatre ans non qu'on arrête au Sénégal may ñu tànn man pour man au Sénégal noonu nañ ñu bàyyi ñu tànn on est on est majeur on est vacciné nañ ñu bàyyi ñu tànn suñu président bu ñu neex on n'a pas besoin ñu ñu naan kii mooy dem kii mais c'est c'est c'est vraiment malheureux pour Sénégal. Bala Moussa euh,